La place de la nation n'est pas un champ de bataille. Nous n'accepterons plus jamais que des gens tapis dans l'ombre, instrumentalisés. Ce sont les jeunes de Dakar et de Colomane qui sont mis en prison. plus jamais. À partir de maintenant, les jeunes de Dakar, nous sommes debout. période de pandémie dañoo ne dañ nekk ci pandémie des gens tapis dans l'ombre pendant des années vous avez vu l'événement de 2011 et de 2012 le mouvement Y en a marre et Alioune Tine sont venus ici manifestation ñu jàpp les jeunes de Colobane pendant 4 ans amuñu kuñu réinsertion sociale léegi dañu namati ñun les jeunes de Dakar des gens de Ndingler de Kolda de Sédhiou et de la banlieue dakaroise ñoo fi sëmee seen terreur ba ñun les jeunes de Dakar nanguwatuñ ko. nanguwuñ ko duñ ko accepté ji. ñun njàng la ñun on a besoin de de jeunes conscients. de jeunes réfléchis le Sénégal a besoin de sa jeunesse. mais ci li ñuy woo moom mooy gëte la sous-région du Sénégal. ces gens là chaque instant ci combat la ñuy woo ci talpono ci bari ay tali ñun le Sénégal de demain. c'est ce que nous en ferons ñun nous avons besoin de jeunes réfléchis de jeunes intellectuels de jeunes yoo ne ce sont des vrais patriotes mais c'est ces gens-là léegi ma wax la déglu de Dakar ma rek déglu ma de Dakar ma fay écoute ma de Ayer ma xam leen moo tax ma ma xam